Christian Abadioko Sambou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ba. alors ngay euh, docteur en sciences politiques sa xel màcc lépp lu jëm ci wàllum relation internationale euh, nga nekk analyste politique itam euh, ñu gis ne juri ngi ñu dénk biir réew mi di Jean-Baptiste Tine moom le nag xamle na samedi gi ñu jugee ne daana taxawal ab benn cadre goo xamante ne dinañ mën ci lal waxtaan diggante ministère am waaye tamit parti politique yi nga xamante ne war nañoo jëm ci législative yile ana nan nga jàngatee ay kàddoom. waaw cadre cadre bu mu bëgg taxawal euh, moom euh, Jean-Baptiste Tine ministre euh, de l'intérieur de la sécurité publique lu ñuy rafetlu la <coughs> ci ci fànn yu bëri bu ci bu ci njëkk de boobu boobu kuréel day tax ñu mën a déconnecter lépp luy liggéeyum ministère de l'intérieur ak parti politique yi ci ci ci wàllum ci wàllum élection donc élection warul tax rek. ministère de l'intérieur ak parti politique ñuy ñuy gisee donc cadre boobu dina tax waxtaan yi gën a gën a continuer waxtaan yi mën a am ci ponk yeneen ponk yu dul ponk ponk élection rek. Hmm. donc beneen beneen beneen fànn bi mooy euh, ci euh, ci cadre électoral donc ci cadre élection euh, boobu boobu dina tax liggéey bi liggéey bi liggéey bi gën a ñoŋ ci ci parce que dinañ am jot gën a liggéey gën a waxtaan. ci euh, ci ay texte de loi ci ay sujet ci calendrier électoral donc loolu dina tax transparence mën a am euh, kóolute mën a am donc confiance entre entre acteurs yi donc dina créer tamit benn genre espace euh, boo xam ni dina am convergence d'idées loolu dina tax tamit ñu mën a moytu lépp luy ay requête de report d'élection lépp luy lépp luy ay ay xëccoo yoo xam ni dina créer ay tensions Euh, tension politique tension électoraliste. Mm. donc loolu loolu boobu kuréel tamit mën na tax euh, ñu euh, ñu mën a imaginer parti politique yi gën a participer ci dundum dundum askan wi parce que am na parti yu bëri yoo xam ni ci élection rek nga leen di gis donc seen tour ci élection rek nga leen di gis donc boobu dispositif boobu boobu kuréel mën na tax tamit ñu xam kan mooy. kan moo yor parti politique lan mooy doyo parti parti bi mën a assainir rationaliser lépp luy espace yu parti politique yi donc mën na tamit permettre préparer teel a préparer lépp luy lépp luy euh, compétition compétition compétition politique boobu kuréel tamit mën na tax euh, acteurs yi waxoon naa ko sànq ñu mën a discuter ci loi yi parce que loi boo xam ni day encadrer euh, parti politique yi loi bu yàgg la 1989 la lay daté te loi boobu mooy modifier Euh, loi loi loi loi de 1981 donc jot na nag par rapport ak suñu contexte bi tamit évolution politique bi euh, parti politique yi ak ministère de l'intérieur chargé des élections ñu mën a waxtaan ci euh, ci tëggaat ay textes yu bees donc ci ay élections yu bees loolu yëpp dina tax réew mi gën a dal ci wàllum pré-élection ak post post-élection. alors nga foog ni repousser date limite u dépôt candidature yi solution la. bon euh, report c'est vrai que am na am na parti politique yu jotoon laaj euh, report euh, mooy dépôt de candidature yi bon la date limite bi la dëmb dëmb la woon mais report boobu requête boobu ministère de l'intérieur jot na ko jot na ko rejeté mais luñ ci il faut ñu def tuuti jàngat ci ci ci lan moo tax parti politique tamit di di laaj ay ay ay ay report d'abord ci man ci sama jàngat mooy daa am benn manque de préparation Euh, ci ci parti ci parti politique yi am tamit euh, ay jafe-jafe parti politique dañoo am jafe-jafe de d'organisation de structuration parce que ci sama xalaat sama xalaat daal euh, bépp parti politique bu bu dee structuré wu nga bu baax am say say délégation yu taxaw quel que soit le délai war nga mën a déposer liste de candidature donc loolu loolu lu am solo la donc report musul musul doon lu baax parce que report day tax euh, day compromettre euh, texte de loi yi donc euh, am na loi loi électorale donc bu wootee en fait le corps électoral pour le 17 novembre donc boo reporté rek di nga empiété wu ci agenda bi donc dina di nga complexifier tamit organisation bi pour pour ministère ministère de de de de de de l'intérieur alors ci législative yi ñu jëm fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ñu gis ni nag am na 49 listes yu ñu jot a enregistré ana nan nga ko jàngate awma ci mbetteel donc 49 listes lu lu lu normal la sax parce que représentation parlementaire la ñuy wax mooy ay ay députés yu war a représenter seen seen gox donc euh, yu repré war a représenter euh, population yi euh, lu lu war a am la lu ñu war a ñaan la sax sénégalais yu bëri mën a am ambition boobu. mën a mën a teewal seen seen seen seen seen ak askan loolu dinañ ci mën a jàngat euh, benn vivacité politique benn animation animation politique mais tamit ci beneen fànn mën nañ ci jàngat tamit benn crise ci formation politique yi coalition politique yi donc euh, c'est-à-dire que euh, parti politique yi donc ci crise bu ñuy dund tax na liste yi di gën a bëri coalition yi tamit di Euh, di gën a di gën a bëri aw ma ci mbetteel tamit parce que élection yu yu ñu jot yu ñu jot a pa euh, yu jot a weesu vingt quatre mars deux mille deux mille vingt quatre yi euh, ci candidature yi rek pour présidentielle même si c'est pas comparable ay deux cent deux cent la ñu amoon donc bu ñu amee tey quarante neuf xaw ma trente cinq dinañ ci am lu leer ci kanam loolu lu lu xaw a lu xaw a lu xaw a normal la hmm. ci ci ay élections yoo xam ni bon amul amul parrainage tamit. Euh, parce que e élection anticipée la mais même bu amoon parrainage mën nañu xaar euh, lu mel ni euh, cinquante cinquante cinquante cinquante listes luñ ci mën a tirer tamit comme enseignement mooy bépp dispositif boo mën a teg de sélection de tri muy parenage muy quitus fiscal wala caution lépp luy expression de participation aux élections léegi ci Sénégal dafa mel ni stratégie la ci femmes et hommes politiques yi parce que day tax Euh, ñu mën a accéder ci population yi day tax tamit ñu mën a accéder ci médias yi euh, day tax tamit ñu mën a tabax benn benn renommée euh, benn honorabilité donc voilà loolu loolu loolu c'est loolu lu normal la daal donc moo tax ma ne la ci njëlbeen awma ci mbetteel alors lan mooy fi mu toll nii enjeu yu législative anticipée yi ñu jëm fukki fa nekk juróom-ñaar ci weeru novembre enjeu yi bëri nañu enjeu yi bëri nañu trop mais mën nañ ko Euh, mën nañ ko évoquer ci ñaar ci ñaar fan bu ci njëkk mooy euh, ci élection présidentielle li ñu jógee donc PASTEF euh, accédé ci nguur gi avec cinquante quatre pour cent des des électeurs ñoo xam ni benn programme bu ñu woo programme de rupture la ñu la ñu voté donc loolu mooy premier enjeu bi pour régime bu Diomaye Diomaye Diomaye Diomaye Faye mooy nu muy def ba am une large majorité pour mën a doxal programme loolu am solo la Euh, moo tax élection yi ñu nii daa mel ni sa élection deuxième tour euh, présidentielle euh, ci ci misaal concrètement majorité absolue mooy trois cinquièmes des des des députés loolu moo mën a jàllal lépp luy loi et proposition de loi donc il faut quoi PASTEF mën a am quatre vingt dix neuf ba cent plus de cent cent cent cent députés pour mën a voter proposition proposition de loi yi sans sans ñu am gàllankoor gàllankoor yu bëri. bu mm-hmm. ci topp mooy. mooy euh, euh, sénégalais yi dañoo dañoo yàgg jooytu euh, qualité de député yu ñu am législature bu bu bu fi jàll gis nañu ay députés yu xeex ay députés yu def <laughs> trafic de de passeport loolu yëpp jot jot jot na fi jaar hmm. donc sénégalais yi ñu ngi xaar tamit ci législature quinzième législature yi ñu am député yu mat député mooy député yoo xam ni xam nañu enjeu yi xam nañu enjeu yi ci le plus reddition des comptes le plus contrôle de l'action gouvernementale lépp euh, luy euh, cour euh, cour cour de justice ay député yu xam daal nu ñuy tëggee nu ñuy tëggee budget nu ñu waree défendre seen seen askan mhm. donc sénégalais yi dañoo soxla mën a gis seen bopp ci député yu ñu war a yu ñu war a tàbb loolu mooy enjeu tamit bu gën a am solo ci ci fu ñuy jëm parce que parlement bu ñu fàtte ni que mooy deuxième institution suñu suñu suñu suñu charte réew donc lu am solo la pour démocratie mën a mën a mën a jëm kanam lu am solo la pour équilibre des pouvoirs contre pouvoir mën a am donc lépp luy euh, contrôle de l'action gouvernementale député war na ko mun def nga bokk PASTEF nga bokk xawma taxaw nga bokk euh, euh, PDS quelle que soit la coloration politique war nga mën a représenter askan wi ci lépp luy légiférer les lois ak contrôler l'action gouvernementale. alors lan moo waral formation coalition politique yi di bëri ci élection législative yi ñu jëm. laaj bu am solo la nga may laaj euh, madame Ba euh, depuis euh, ci lu yàgg ñu ngi commencé gis coalition yi di gën a di gën a di gën a bëri di participer ci compétition compétition politique yi mais ay coalition yoo xam ne la du ñu yàgg tamit boo xoolee wàllu nga xool yeewi donc ay coalition circonstancielle la ci xam naa ni Benno Bokk Yaakaar moo gën a yàgg ci coalition yëpp te Benno Bokk Yaakaar Macky jot na di dissoudre tamit donc existé tul donc ñaar ñaar ñaar ñaar mën nañ ci def ñaar njàngat par rapport ak objectif euh, euh, coalition yi tamit bu ci njëkk mooy coalition yi dañuy bëgg euh, am lu bëri ab multiplier seen chance en tout cas pour mën a am ay ay gain ay gain politique tout en minimisant les les coûts les les coûts du gain maanaam doo def doo def doo investir lu bëri ci cadre coalition bi mais mën nga am mën nga am lu bëri moo tax partie yu bëri léegi dañuy dugg ci coalition loolu da leen di permettre ñu mën a économiser ci lépp luy caution mën a bañ a dépenser euh, yeneen dépenses yi ci logistique euh, parce que élection tamit euh, doole la laaj xaalis la laaj et ci te ci coalition yu bëri di nga gis ni ñu koy waxee ci nasaraan ay passagers clandestins ñoo xam ni du ñu def benn effort ci coalition bi mais dañuy partager bénéfice bénéfice Euh, bénéfice bu coalition bi di gagné donc loolu moo tax tamit coalition yi di gën a di gën a bëri ci suñu ci suñu réew beneen jàngat bi mooy euh, coali coalition yi dañoo commencé bëri tamit euh, ci ci mandature libérale donc depuis Abdoul Abdoulaye Wade parce que tamit dañoo commencé gis ay crise crise idéologique maanaam partie yu gën a am doole mooy idéologie socialiste idéologie libérale dañoo commencé perdre seen seen seen seen puissance donc loolu dina tax day tax tamit euh, ligne ligne ligne d' opposition yi programme yi bañ a donc feuille programmatique yi duñu duñu duñu leer trop day tax coalition yi coalition yi bëri hmm. donc loolu moo moo tax tey nga mën a gis euh, coalition boo xam ne day am quelques éléments de APR quelques éléments de PDS nga gis yeneen coalition PS ak yeneen yeneen parti euh, politique coalition VAR lañ koy wooye donc loo loolu nag genre coalition yu du conviction politique du idéologie politique moo tax mu mu am mais ay individualité ñooy rassemblé wu te seen objectif mooy conquête conservation yeneen siège pour mën a am immunité parlementaire mën a am ñu mën leen woo tamit honorable titre d'honorabilité donc euh, ñu ngi ci ay objectif ay objectif nit mais nekkuñu ci objectif programme objectif objectif société alors ñu gis ne euh, dépôt liste candidature yi euh, jeex na démb ci minuit Sonko nag nekk tête de liste euh, bu PASTEF. parce que son bon Sonko nekk tête de liste PASTEF ñu bëri ci waa PASTEF ñu ngi ko daan xaar. parce que lu mm. baax la tamit ci ci PASTEF. ñu bëri ci waa Séné ci ci ci ci Sénégalais yi tamit ñu ngi ko doon xaar am na Sénégalais yu bëri bëggoon nañu bëggoon nañu gis Sonko ci tête de liste mooy élection deux mille vingt deux yi mais décision conseil constitutionnel mu supprimer woon euh, liste des titulaires taxoon na euh, Sonko nekkuloon euh, voilà candidat à à à cette élection donc pour ñu bëri bon lu lu lu jaadu la lu baax la surtout pour groupe PASTEF mën a am comme tête de liste Sonko koo xam ni bon machine politique la tamit daal loo mën ci wax loo mën ci wax machine politique la nit la koo xam ni am na popularité bu bu rëy renommée bu rëy donc avantage bu rëy la pour pour PASTEF daal. donc nañ xaar ba ci kanam élection yi bu campagne yi bu ubbee xam xam euh, affaire yi mais pour pour Sonko ci boppam sax mën na participer ci élection yi lu baax la parce que ci présidentielle présidentielle yi jotul jotul participer donc moom tamit euh, dina ko permettre mu mën a évaluer dayoom même si euh, Sénégal yu bari xam nañu fu mu toll déjà ci ci askan alors mënuñu jeexal te waxuñu ci agression Guy Marius Sagna fi nga xamante ne nag mooy tugg ana nan nga ko jàngate waaw ah, ah, lu ñu ñaawlu la euh, fu ñaawlu mun a yem euh, agression bu lâche la euh, ñu koy condamné bu baax di ko ñaawlu ak parce que agressé agressé parlementaire koo xam ne mi ngi ci liggéeyam di def liggéeyam Guy Marius Sagna Sénégal yu bëri xam nañ ko au delà du Sénégal africain yu bëri xam nañ ko xam na tax xam nañ taxawaayam ci lutte pana panafricaine donc euh, dem Togo ci exercice de son de son de son de son de exercice de son travail de ses missions ñu mën ko agressé donc euh, lu ñu war a comportement bu ñu war a condamné la fermement te laaj tamit autorité sénégalaise yi euh, autorité compétente yi ci coopération ak autorité togolaise yi ñu mën a ñu mën a ñu mën a poursuivre ñoom ñoo xam ni auteur yoo xam ni jot nañu def ñaawteef ñaawteef yooyu parce que euh, liggéey parlementaire la ñu war a protéger la war a aar ci boppam. donc hmm. parce que dafa dafa am solo parlementaire euh, du citoyen lambda donc dañ ko war a dañ ko war a aar dañ ko war a dañ ko war a protéger. Christian Abadiakhou Sambou jërëjëf may fàttali rek ne sa xel dafa ci lépp lu jëm ci wàllum politique waaye tamit relation internationale ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay gërëm maa lay gërëm madame Ba